jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di yoo dal leen ak jàmm ci seen i actualité du jour dañ koy dooree ca diwaanu Mbour foofee nag benn commerçante moom la fekk mu daal di ñàkk bakkanam ci ay circonstances yoo xamante ne nii doy na waar moom mi leen nag fi mu ne ki nga xamante ni moom mooy ab copain wam ak ab sëriñ ba nga xamante ni fa la demoon ñaan lu ji ñoom ñaan ñëpp daal dinañ leen di uh, teg loxo moom ndaw si le nag ay atam mi ngi tollu ci ñaar fukk ak uh, juróom-benn ñu ko fekk ñu daal di koy nag uh, laxas ci benn sac en plastique bu bleu bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur mi ngi doon wuyoo nag ci turu Ramata kamara lu jiitu loolu nag moom mi dafa réeroon ay mbokkam lu toll ci ñaari fan ñu wax ni nag ab jaaykat la prêt à porter foofee ca diwaanu Grand-Bourg fa la dëkkoon moom may de ramata nag ni ki euh, samedi gi euh, ci lañ ko daal di faat wala boog ci la ñàkk bakkenam ginnaaw ba 4 heures du matin di jot laata rek ñoo jël ab néewam sànni ko ci benn àll bu nekk ci village bu ñuy wax euh, ngeriñ mu ñu ba tey ci euh, journal bi li mu fësal moom mi di Ramata nag dafa demoon ci boobu lépp euh, sëriñ ngir mu jox ko bain mystique maanaam rek mu daal di koy euh, ñaanal. ca gannaaw loolee nag la ci jëlee feebar dem ba mel ni sax ku ñàkk am xelam keroog nag bés bi yëf yi di xew ci li ñu xamle kii di ab copain wam lañ wax ni moom moo ko déposé daal di koy gunge ca kër sëriñ bi ko waroon a defal ay ñaan moom nag Ramata mi ginnaaw bi ko njabootam seetee ñaari fan yu teg gisuñu ko. ci lañu ko déclaré naka noonu li nga xamante ne moom moo di ab néewam moom la ñu mujjee daal di gis police nag gannaaw ba mu rek defee constat bi daal dañu ci ubbi enquête te jamono ji sax ñetti nit jot nañ leen cee teg loxo bokk na ci nag euh, sëriñ ba ci boppam waaye kii di ab copain wam ñu koy wax Sadibou Masali ak beneen waay bu ñuy wax euh, Bàcci Diaw jamono ji nag enquête bi mu ngi woyee ni jëmale rek ci faatu kii di Ramata Camara ngir ñu xam fekki itam dañ ko rey ana anakan moo def jooju la jëf. kawteef dëgg moom mooy xew ca quartier bi ñuy wax amitié baobab foofee nag ca sikap karak ginnaaw ba rek xel yëpp concentré wu ci li nga xamante ne moom mooy matchu Sénégal Burkina Faso ba doon am niki démb foofu foofule nag ñaar ñoo xamante ne nii rek ñu leen di woowee borom ñaari tur yi muy ay góor jigéen. ñoo nekkoon eh, di sekk fañ ko doon defee nag la ca gën a graaw mooy eh, ci kaw terrasse eh, benn jàkka bu nekk foofee ca amitié Baobab Karak fa lañ ko doon defee. ñoom ñi leen ak benn soxna sax moo leen daal di seen ah, ñu nekk ca jëf ja moo dem rek alerté ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa këram nekkoon di seetaan match ba ah, ñoom ñi leen dañ koo dagg daal di ñëw def ah, constat bi ci la ñu daal dee nag alerté nit ñi rax si dool yi ñoom ñaar ñi sax am na ci vidéo boo xamante ni filmé nañ leen ba gis kenn ci ñoom ni muy waxee rek morom bi mu ñëw ngir ñoom ñaar ñu sëkk rax si dool yi daal di summi yére yamu soloon Seneweb bi ñu xamal ni ñoom ñaar ñoo nee nag kenn kii magum jëmm la ndax ab oustas la muy lu doy waar ay atam mu ngi tollu rek ci fanweer ak juróom ak benn xale boo xamante ni moom mu ngi am fukki at ak juróom benn moom mile di sëriñu daara bi ba tey ñu xam ne nag li dafa am sax ab néeg boo xamante ni fa la nekk ci biir jàkka ja nga xamante ni fa lay dalal lii di ndongo yi muy jàngal moom mile nag daal dinañ koy teg loxo fi mu ne di ko toppee rek acte contre nature ak lii di pédophilie jamono ji nag mi ngi ci loxol yoon ñu fas yéene di ko jugé fileek ay fan rawatina jëmale ci lii di détournement de mineur ca diwaanu Brésil benn doomu Sénégal moom lañ fa daal di teg loxo moom mi leen nag mi ngi wuyoo ci turu Amadou Thiam ñi nga xamante ne nag moom mooy waa Interpol ñoo ko teg loxo foofee ca diwaanu Brésil bokk na ci nag li koy toppee lii di rek trafic international de migrants. waaye itam blanchiment de capitaux euh, moom mi leen nag fii de ay fan daañu ko extradé fii ci réew mu Sénégal maanaam daal di koy rek euh, dellu si moom du Thiam mi leen nag ñu ngi koy euh, topp boobu ba tey ak organisation boobee di Interpol wax ne nag bu dafa jiite benn réseau international boo xamante ni ay africain ak i européen ñu ngi ca biir te la ñuy def du leen lu dul trafic de migrants te mu nekk loo xamante ni yoon daf koo daadee rek dàkk jamono ji nag bu mayul appen bu mag a mag moom moo koy xaar xaar ginnaaw bu ñu ko àttee ca diwaanu Mbour ba tey benn po soxna buy wuyoo ci turu Ka Keita moom nag dafa sëy ba daal tas am benn doom boo xamante ni moom moo koy gàddu ci biir ay activité am nag ya muy def Euh, ca la dajeeg benn waaye bu ñuy wax euh, Gora Diop euh, moom la ay atam mi ngi toll ci quarante six ans ginnaaw ba ñu waxtaanee nag ci lañu weccoo li di seen ay numéro di faral di wootante moom soxna si leen nag ginnaaw bi ko jafe-jafe àdduna jàppee amul lekk lu mu fajee ay soxlaam ci la kii di Gora Diop ngir yëgal ko ko. ci noonee nag ci lañu fixe benn rendez-vous dem ca fu ñuy wax quartier Mbour nekk ca Mbour euh, ci benn auberge ngir daal di fay tase ba ñu demee nag ba desul lu ñoom ñaar yu daal di sekk ci la xale bu jigéen bi wax kii di G euh, Diop ni ko rek mu dem euh, pharmacie daal di fay jënd ay préservatif ndax nag deful li di planning. moom aussi la nag ba mu demee jëndi euh, préservatif kon kii di xale bu jigéen ba euh, des ca néeg ba deful leen nag lu dul sàcc xaalis ba mu fa wàccoon lu toll ci euh, cent cinquante deux mille francs nag moom la jël daal di koy rek yóbbaale wàccal ko fa lu dul sept mille francs képp daal di dem yoonam nag ba ko fa kii di nag G Diop ba mu ñëwee gis ni xale bu jigéen bi dem na rax si doole sàcc ab xaalisam ci la dem déposé lii di ab plainte jëmale ci loolu waaye nag moom xale bu numéro euh, téléphone am rax si dool moom waa ji xamul woon na euh, fu mu dëkk ginnaaw nag bi eh, policiers yi defee ay recherche def ay fan gisuñu ko eh, ci la dem ca fa ñu tase woon mi magasin ba xale bu jigéen ba doon eh, liggéeyee daal di leen laaj lii di numéro bu bees bi mu yor bañ ko ko joxee nag ci noonu la police dem daal di koy rek teg loxo moom xale bu jigéen ma nag la ñu teg ci ak ndoddam daal na koy nangu waaye nee na cinquante mille francs dong la jël képp jëlul cent cinquante deux mille yi nga xamante ni kii di G Diop moom lay wax nee na li tax mu ci dem bàyyi ko fa du lenn dudul bañoon sekk ak moom mi di G Diop rek bam ca noppee nag daf ko daal di baalu ak waaye kii di G daf ni na ko fay lu toll ci euh, cent mille francs ci suñu ay euh, koppar moom mi di xale bu jigéen ba nag ñaari weeru kaso yoo xamante ni du ko tëdd moom lañ ko mujjee daan rax si dolli rek cent mille yoo xamante ni daf koy fay euh, dédommagement kii di G Diop jeexalee ko ak mbir yi kii di wuyoo ci turu Mohamed Rasoul Gueye moom mi nag kala mu ginnaaw ba kii di ab uh, nijaayam di wuyoo ci turu uh, Youssou Gueye nekk rakk ci papaam uh, dam ko doon traité dara neexu ko ca bu mel ni nag daf koo soofal daal di koy rek euh, soofantal moo waral moom mii di Mouhamed daal di planifier benn plan euh, ngir euh, cambrioler ko daal di jël lépp lu nga xamante ne amoon na ko ci alal gi loolee nag daal di sotti dafa dem rek wax ko ay xaritam wuyu ci turu Doudou Gueye ñu sukkandikoo ci journal bi Le Quotidien moom xaritam bi leen nag ci la dem daal di koy wutal rek benn sëriñ ak ay bandi laata ñoo def seen jëf jooje ci noonu nag ñu constitué wu benn gang daal di nag dem dugg ca kër nijaay ga nekk ca diwaanu Ouest Foire daal di défoncé lii di bunt bi daal di jaxase kër ga ba mu jaxasoo ñeneen ñi nag di tiire ay ballu pistolet ña ca des nag di damm lii di serrure yi armoire yi laata ñoo jël lu toll ci trente millions sept cent vingt mille waaye itam ay bijoux en or ak i téléphone portable ki nga xamante ne moom moo di ab cousinam di wuyoo ci turu Mané Gueye sax moom moo daal di dem dénoncé ko ndax ci biir cambriolage bi dafa xàmmee kii di Mouhamed Rassoul di dem rek euh, teg ko loxo moom mi leen nag bañ koy interroger nee na dafa mere nijaayam ji ndax rek dafay jël xaalis bu bari bari ak i euh, oto Euh, di ko jox ay euh, connaissance am daal di koy bàyyi moom. loolee waral nag nee na ginnaaw bu ñu tëggee seen plan moom ak euh, ab xaritam xarit bi lee dafa demoon ci benn sëriñ sëriñ balam leen sant nag du leen dudul ñu daal di rey benn xar ñu jël ndawal ga yëpp daal di koy séddale ba mu des lii di xol bi boobu le xol nag nee na xaritam moom moo ko jël yóbbu ko këram daal di koy préparé keroog ba mu ko jëlee lekk ko nag nee li muy wax ak li muy jëf yëpp xamatu ci dara lu ko xarit bi waxoon rek loolu lay def. nee na moom sax di xarit bi moo recruter bande yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ca euh, cambriolage ñoom ñi de nag bokk na ci liñ leen di toppee association de malfaiteurs bañ leen tegee loxo ba tey itam ñu ngi ci euh, loxol yoon seenub àtte sax dañ koo daal di rek euh, dàkkaat ba 17 février bi ñu dëgmal mbokk internet yi fi la ñuy yem ak yéen tey ci seen i actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf